chaîne nationale bu rajo Sénégal moo leen di indil seen émission bis ni tey bis ni tey ki leen koy defal di seen xarit Atoumane Mbaye di conservateur ci archive nationale asalaamaaleykum mbokkee xarit yi ñuy déglu bis ni tey ñaar fukki fan ci weeru mars atum 1957 ci la liggéeykati nguur gi tàmbali woon ab grève wu ñaari fan gréewu ñaari fan bi nga xam ne liggéeykat yi nguur gi ñoo ko doon def mu nga tàmbali woon fii ci ndakaaru keroog àllarba ñaar fukki fan ci weeru mars atum 1957 ca ña bokkoon ca grève ba ñañ ca gënoon ràññee ñooy liggéeykati post yi waa délégation de Dakar ak liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci gouvernement généralu AOF ci building administratif bi nekk fii ci Ndakaaru bokkoon na itam ca ña doon grève ñi nga xam ne ñoom ñooy waa douane waa météo civil yi doon liggéeyee police waa travaux publics waa contribution directe waa santé ak itam waa service di d'hygiène ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi doon liggéey ci dispensaire yi doon toppatoo wérgu yaramu élèves yi ñoom mujj nu woon a bokk ca grève ba wuuteeg waa waa mairie ak ñenn ci jàngalekat yi la waraloon grève ba nag moo doon ay ñaxtu yu liggéeykat yi doon ñaxtu ngir ñu yokk seenug euh, pay te itam euh, ñu embauché journalier yi nga xam ne liggéeyloo nañu leen lu mat ñaari at ci démb sa doon talaata fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars liggéeykat yi amaloon nañu sax ab euh, meeting ca mbot ca ba tàkkusaan weesoo tuuti bisu keroog fonctionnaire tubaab yi newoon ci réew mi ñoom itam jaare woon nañu ca def ab gréwu yëglu bu ñaari waxtu ngir ñaxtu loomaate bi nga xam ne amoon na eh, ci wàllu payoor ci seen diggante ak seeni i nattangoo ya newoon ci réewum France li nu mën a jàpp daal mooy ne gréw boobu liggéeykati nguur gi doon amal ci ñaar fukki fan ci weeru mars ci atum 1957 àggoon na fa ko liggéeykat yi doon séentu. bis ni tey la woon itam ñaar fukki fan ci weeru mars ci atum 1846 ci la gouverneuru Sénégal ba ñu doon wax Olivier xaroo woon ca Ndar ñaar fukki fan ci weeru mars ci atum 1863 ci la tubaab yi boole woon gox bi ñu naan Tooro ca Fuuta ci gox yi ñu yilifoon ci biir réew mi ñaar fukki fan ci weeru mars ci atum 1887 ci la ñu doon inauguré statue général Louis Faidherbe ba nekk ca place du gouvernement ba ca Ndar ginnaaw ba nu feetoo lu mat ñeenti fan mbokk yi xarit yi fii la ñu yem yéen tey di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal ba ca jàmm ci machine bi Fatou Kiné Gueye ak Salimata Diop ci kàddu gi seen xarit Atoumane Mbaye di leen dig nag beneen jokkoo yeewoo ci waxtu wi su neexee sunu borom.